sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal audu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala rasulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp nuyu jullit nuyu lislaam di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ak tawfiq mu mel ni suñu jotaayam tey mu yóbbulum ndaw ñi ci xam say farata jàngale woon nañ jotaay yi weesu mel ni suñu jotaay mujj xamale woon nañ ci ci bëgg a julli war naa leen jàpp ak la cay aju yëpp ba jàngale nañ liqaam ak nañ koy waxee ak la ca aju yëpp wax nañ bu liqaamee ba bu taxawee ba jublu penku ba liqaam ba pare yéene julli waxtu wi mu bëgg a julli bu dee limaan daf koy jiite mu yéene roy ci jëf kon nag day tàbbi ci biir julli bi li muy tàbbee ci biir julli bi nag mooy day yëkkati ñaari loxam ba mu tiim ñaari mbaggam mu daal di wax allahu akbar benn yoon bu dee moom dong mooy julli waaw bu dee yow dong yaay julli da ngay tari fatiha benn yoon ak saar wu la neex wala fatiha benn yoon ak aaya alquran bu la neex bu jeexee nga sëgg jàpp say wóom boo jàppee say wóom nag da wax allahu akbar benn yoon daal di wax subhaana rabbiyal azim ñetti yoon wala nga yegg ci subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi ñett yoon boo ci def dina baax nga siggi wax samiha allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu boo siggee daal dem sujjóot maanaam mooy jël sa xar kanam sa jëbi teg ko ci suuf mooy sujjóot daal di wax allahu akbar benn yoon li ngay wax ci sujjóot mooy danga naan subhaana rabbiyal ahla allahumma ixfir lii ñetti yoon wala nga yem ci subhaana rabbiyal ahla ba tey dina baax yoon boo waxee la ba pare toog boo siggee ba toog wax allahu akbar wax lii allahuma ixfir lii warxam nii warzuq nii wastur nii wajbur nii wahdi nii waxfu xan nii waxaati nii benn yoon nga koy wax bu dee dafa jafe ci yow nga wax ne allahumma ixfir lii ñetti yoon waaye boo mënee matale loolu moo gën waaye bu jafe ci yow nga yem ci allahumma ixfir lii daal di koy wax ñetti yoon boo ca jógee ci toogaay boobu nga sëggaat maanaam nga sujjootaat teg sa jë ci suuf daal di wax la la waxoon ca sujjoot bu jëkk ma ngay waxaat nga am benn rakk daal di jóg taxawaat jàng la nga jàngoon ca la waxoon ci rakk bu jëkk ba boo yëgsee ci toog nga toog taaya kon am nga ñaari rakka bu dee ñaari rakka la nga am ci suba da ngay sëlmal da taaya sëlmal bu dee julli suba ndax ñaari rakka la da ngay toog taaya sëlmal sëlmal nag mooy nga wax baat yi assalaamu aleykum loolu mooy sëlmal bu dee tiis ngay julli nga tari la ma ci rakk bu njëkk ba mooy faatiha ak saar daal di jugaat tariwaat rakkaam ñaareel ba faatiha ak saar da ngay toog taaya boo toogee taaya daa di jugaat xali sa rakkam ñetteel faatiha dong daal toog taaya taaya bu mujj daal di bu dee tisbaar ak takkusaan ak gée ba tey ñaari rakka yama la waxoon mooy da ngay jàng faatiha ak saar dangay def ñaari rakka yoo xam te ne da ngay jàng faatiha ak saar daal doog daal di toog taaya taaya bu boo jógaatee ñaari rakka yu mujj nga jàng ca faatiha kepp daal di toog taaya sa taaya bu nga daal di sëlmal kon loolu mooy julli juróomi bu dee suba ñaari rakka lay doon nga taaya sëlmal bu dee timis ñetti rakka lay doon nga taaya sëlmal bu dee takkusaan ak gee tisbaar ñeenti rakk lay doon ñaari rakk yu njëkk ya faatiha ak saar ngay jàng soog saay saay bu njëkk daal di jugaat jàng ñaari rakk yoo xam te ni faatiha dong ngay jàng daal di taaya kon loolu mooy juróomi julli yi bu nekk man koy jullee kon loolu mooy juróomi julli kon léegi li ñu ñëw mooy taaya bu njëkk njëkk nag ak taay bu mujj ci la ñuy ñëw incha allahu rabbi waaye mel na ni dañ koy wax tudd ko ngeen ñu déglu ko mooy taay bu njëkk bi nii nii suñ tàmbalee mooy attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka wa rahmatullahi taala wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallam abdahu wa rasuluhu loolu mooy taaya bu njëkk raay bu mujj nag dañ koy yokk lii ginnaaw boo jàngee li ma wax ba pare dañ koy yokk lii wa ashadu anna alladi jaa bihi sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam xaqun wa anna aljannata xaqun wa anna annaara xaqun wa anna alsiraata xaqun wa anna alsaata aatiyatun laa rayba fiihi wa anna allaha yabasu man fi quwa daal di tegaat allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama sallayta ala sayidina ibrahima wa ala ali sayidina ibrahima wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama barakta ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina ibrahim fil alamina innaka hamidun majidun kon loolu mooy waaye di mujj kon nag saay bu njëkk mooy loolu ma la waxoon bu njëkk ba saay bu mujj ci ngay dolli loolu kon nag dañu yamale ci kàddu yi xam naa ba beneen jamono su defee ñu leeral nag yeneen leeral yu bokk ci biir bi incha allah rabbi dañu wàcc kàddu yi jox mbokk bi yëpp beneen jotaay incha allah mboolem ñu taw fiix in uridu illa islaaha ma istata'tu wa ma tawfiiqii illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal